ahkamal hakimin ñetti melo lay am day xam ñii ñëw lu ñu jote biñ laata ñëw ba nga gësa baaram ñaareel ba day am doole ba du ragal kenn doomi ku fi mën a ñëwit mu attale rek ma dem day doyal ci lépp day doylu ba soxlaaloo kenn dara yaay waa naas antumul fuqara ilallahi walaahu xaniyun ankum yàlla na ne yéen nit yi ñëpp góor jigéen mag ndaw waliyu yéefër buur baadoola ndóol ku risaas yéen ñëpp laa wax ku ci ne am nga soxla ci man te nay kenn groupe bu day nii yéen kenn ku ne am ci man soxla te nay kenn te man kenn soxla lu may ci yéen ñëpp kenn dara yaa ayyuha nnaas antumul fuqara ilallah rabbu samawaati ngoog wal ard yéen ñëpp ndeysaan ñee ngi yor tiit ñee ngi yor mébét ñi lamboo ay tooñ dafa am fu ma dem sànq gaa yi na nañ ñaan ma ne déet nañ baalu door a ñaan ah nga def fot boo commissaire de la seet nga dem di ñaan permis sabar du yàgg moom kañ fokk nga baalu ku ci deeti ñaan jànq yi kilifa yu baax yi bu sa fatiha jeexee rikk waaye defal astaghfirullah dooro def salaatu ala nabi dooro ñaan astaghfirullah bi mooy sangu salaatu ala nabi mooy teni bi nga door a wax say soxla waaye te xarib te xarib sol ay sagar du sotti ma ne nun ñëpp nanu sant borom bi dolli ci liñ ko santoon sant ku deme ni groupe bii def lii sant ku demee ni Abbas Gueye may def lële sant ku demee ni kaay baax sant ku demee ni ñii ma tàggul démb ñu tudde seen bopp sant yàlla yii am na lu ñu am na ñu défendre ci réew mi de ku ko xam am na ku ko xamul am na am na lu am ku yëg ne am na lu am am na lu am ku yëgul ne am na lu am billahi am na lu am benn benn bii di ricc di def lii xam ne man fii heure bi toll bu dul woon tant bi dina fekk ñu jub ñëpp nelaw heure bi bu dul woon tant bi dina fekk ñu jub ñëpp di nelaw bay gént ñu jub ndax am tafsir mbooy mën naa am dégg gi dégg gi dafa yaa bu dul woon yàlla ak tant bi kon ndëga dina sakk ñu jub ñëpp di nelaw mën nga ko déggee neneen mais mën nga ko làmbeer it déggee ko neneen waaw kañ ñu juba nee nga feneen loolu nga dégg yow ñu bari noonu la ñu dégg man mbay waaye it war ngaa dégg ne ku jub day buy nelaw mu ngi ci perte te ku jub bu perte ku juba di waxi noppi gisuloo inna linsaana la fi xusri am na ñuy firi linsaana boobu la nit am ñu koy firi yéefar fekk déedéet jullit a ngi ci perte wël yongi ci perte sëriñ a ngi ci perte yéefara ngi ci perte ku juba ngi ci perte saa saa ngi ci perte inna l'insaan la fi xusrin parce que istixraaq la waaw waaw suñu fi suñu toppee loolu dañ fiy guddee te day dañu bëgg a xam tey dolli ci la ñu xamoon bëgg a sopp dolli ci la ñu soppoon sayd al wujudi waaw mafoon la sayd al wujudi la wax jibril ne na xabiltu masariq al ard wa maxaaribaha falam ara rujulan ka misli muhammadi ne na lëñ bët naa àddina fa jant ba fenk ba fa muy soy ma dox côté bii ba mu daj may visité nit ñi dajewuma kenn ku niroog muhammad waxumaag mel ni moom kooku moom moom ngeen tàntal kooku ngeen toogal ki malaaka yi teeru moom ngeen toogal tey tey ma wax leen tuuti aaluhu fi qayd al ayaati wa aaluhu fi barsaqiya wa aaluhu yowm al ashri wa aaluhu haalata kawnihi nuura wa aaluhu fi tibaaqi samawaati mutafariqa melow na bi ak darajaam ak darajaam ci alimul mulki parce que alimul mulki mooy bii dinañ ko wax naasuut di ko wax alimul mulki di ko wax di ko wax di ko wax itam alimu dunir yi mais boo jógee alimul mulki première pay bi ngay jaay mooy malakut yi waxuma la sànq ne jibril la seegi malaaka yi mais jibril ba mu ànd ak nabi ku digri ñaan nga dem na ba mën a tula dem bëgg a lab te mooy jiitu nabi gis ci pay bi lu mu musul a gis li muy bari bari gis bër bu set Basiru ba ni mu demee ba sàq nabi bër bu set daan na yéeg juróom-ñaar fukki daraja par jour ndax daa toog ba mu yàgg mu ne astaghfirullah toog ba mu yàgg mu ne astaghfirullah ndekk astaghfirullah bu mu wax dafa juux ci lu mu xam woon ne yàlla bind na loolu mooy baalu yàlla ci li mu nekkoon ba yéex arrivé soixante-dix fois par jour illa yoma wafati Ababacar di dox mu topp ci Ababacar di dox mu topp ci bi Ababacar ne Jibril kon di dox mu topp ci ba Jibril ne jësum jibril ala alayhi salaam ne jësub yonent bi ne ko doxal mu ne ko mënatuma dem fii benn jeego rek boo ko passé leeri alas dina ma la ko dur nimb ba mu ñu def échange taal ko sa dara jaama taxa ak fii tey yonent bi ne ko fu ma jëpp yarul sama gidd romb nañu asmaani juróom-ñaar suuf yi juróom-ñaar romb alimul mulk malakut jabarut arsh ba fii afi misli hada yetrukul xalilu xalilahu maasal lon ko muy faayil nga nasab muy maful afi misli hada yetruku xalilu xalilahu a jibril place bu rakroo nii place bu wéeti nii xarit néeg na fa awa ca xaritam mu ne ko na may def te wa ma minna ila loo ma xamun maalum way naa leen aw saafuun way naa leen aw musabihoon fa jibril tëlee Moustapha jéggi na ko juróom-ñaar fukki junne kiiraay kiiraay lu nekk doxob juróom-ñaar fukki junne at la mais bu ci ne mu ngi dégg ñu naan ko jegeñ sil jegeñ sil bu bëggee arrêté ñu ne ko jegeñ sil ëttanu mi nii ëttanu mi nii ilaa xaaba xawsayni awaadana waawaa ilaa abdihi mais wa billahi ma katabal fuaadu maara waaye ndeysaan ba Ababacar ba nebbi dellu si ci suba Ababacar nuyu si ko daf ko dama ne jaaxal nga ma ndax Jibril fa mu tëlee li ma xuus ginnaawam xaama na mu day waaye yow ba fa ma yem maa ngi dégg sa baat ci sama kanam Abubakar Siddiq ba fa nabi yam wàññeeku mu ngi dégg ndi baati ci di Abubakar ci kanamam te téere yi nag ne nañu Ababacar àggu fa woon yàlla dafa xam ne ne day wéttalam te bërëb te bërëb bi ràkklu mu bëgg ko naxe baate Abubakarin xam na ne fu mu dégg baate Abubakar ñemeñ faa dem loolu la woon mu ngi mel ni sa xar mu rabe nga bëgg koo jàpp fab leket def ca pepp naan ko ko nii yàlla Ababacar la defoon pepp di ko naxe Moustapha ba ne ko nuus ilaa xaba xaw si na war dee fawirat mooy mooy asraf alxalqi wa akramahum benn addisi ngi bu doy waar bu Moustapha di waxtaan ak Jibril ne ko moo Jibril bi aadama nekkee yaa ngi fi mu ne ko waaw waaw mu ne ko Yuusufa doon mu ne ko ne ma la xame yanqoo ba mu ne xam naa ko ba jeexal ko di ko limal ba yonent yi jeex mu ne ko kon takk nga say at Jibril na ko takkuma ko waaye daal yëg naa ne am na benn biddéew buy fenk ci suufi arsh par juróom-ñaar fukki junne at lay fenk su fenkee dina am ci asamaan juróom-ñaar fukki junne at bu suuxee am juróom-ñaar fukki junne at door fekk biddéew boobu fekk naa fekk te juróom-ñaar fukki junne yoon yenente bi ne ko am naa saakal kawkab yi maay biddéew booba ku ko sopp mucc ku ko gëm mucc am na benn israil booba nabi juddoogul diggante ma gan ak nabi àddina mat na ñetti junney at tàbbi na ajjana ngir Moustapha bokkul ci xeet wi jotul a dugg ci diine ji laaj leen ma fu mu jaar kañ tawreet lu ñu mës a ubbi waaw di ko liir ba agsi ci turu Muhammad wees qaala Iisaa ibnu Maryama ya bani israila inni rasulu ilay rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday mina tawrat wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu Ahmadu falamma jaa'ahum bil bayyinati qalu hadha sirrun mubin wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiban wa yud'a ila al-islami wa ula'ika humu zalimun yuriduna an yakfu amna liyakfu amna fi barala bi suratu saffila ka yoroon téere ba nit waa jii kat tur wi borom mooy ki gën ci li yàlla bind mooy mujj yonent yi mu fël loxol waaja teg ca baaraamam foon turu Moustapha loolu koy bojjal ba mu dee ñu bëgg ko sàggane yàlla yónnee ci yonentub jamono ba ne ko dem leen ci diw toppatoo ko mu mel ni ko bëgg a fàttali yàlla ne ko yëfër la woon mu ne ko dooma wax lu ma xamul xam naa lu mu doon waaye nag sama sopp bi la gis turam laal ko laal ko ci bakkanam wala ci bëtam fu may jaarati ba lakk ko dem leen defar ko axi musliman bilxaasimi taddamu madlamin sallallahu alayhi wa sallam aabon alayhi naaru qalbi abow boo ko xamul mooy rasulun mooy karimun maa saqat rabbu yonent ba uiddu li aqwalil qiyamati hubbu yonent wa asbi fali minhu malasun wa maljaw jërëjëf am na ñu ngeen bokkandoo nokki at mi ba mu jeex bokk ak ñoom jàmm yàlla ji seen mujj te at mi ñu fanaanee tooñ yàlla ñu fanaanee tooñ yàlla wan naasu taraangay jàmmi atam lëm at mi jeex nga fanaane ko tooñ ko baraat yeneen fukki weer ak ñaar jëmam ci kanam ka leen ba wax ñu dem foofa moo leen dupp dëj leen fii kon cant war na am déet xamula ne tafsir mbooj téere yi d'accord nañu bépp ak tooñ bu jaam tooñ boromam bu ko ko baalulee am na ñaari am na ñaari ñaari pini ñaari mbugal benn bàkkaar benn bàkkaar bu ne yàlla du ci duma benn ba- benn benn benn benn pini benn bàkkaar bu ne day am ñaari pini xam nga lu tax da foog nga am pini pini ijaadu am pini limdaadu amula woon waaw amula woon am déet ñu amal la nga tooñ ki la amal amuleen affaire kooku mooy ijaadu bi yëgule ne amul kenn kuy mooy yàlla jamono boobu fekk mu xiif xiif bay bëgg a dee di këfin amul du fekkit nga tiit soo tiitee si si di day bañ kenn du tiit di këfin du fekk nga mer waaw kii dàqal la xiif dàqal la mer dàqal la tiit nga tooñ ko du ngeen am affaire amula woon mu amal la nga tooñ ko nga ref la mu odd la nga xiif mu reggal la nga feebar mu jàmmal la nga tooñ ko du dox waaw ma ni ku dund juróom fukki semaine ak ñett li nga jaali ci dëj kero bi ñu tasee fii trente et un décembre quatre vingt neuf ba bi ñuy ñëw fii ci trente et un décembre quatre vingt dix li nga fi jaali ci ciy dëj li nga fi seeti hôpital ku feebar li nga fi marsu ku am gàcce te kay defanteeg ñooñu am na droit defanteeg yow te defuñu ko loo ko deful waaw waaw waaye ma ne kooku wax dëgg yàlla sacrifier say nelaw mbaa sas wërsëg mbaa sas coono jëme ko ci moom kenn du la yëpp barki démb rek lañ daje sama jarbaat bu baax bi yàlla dénk ko réew mi maa ngi seen sama sopp bi bi muy wax sax ak moom di ko jërgal jëf président laay wax par groupe groupe par groupe di ko jërgal jëf moom mi ko moom mooma di président góor gi ko may jàmm di borom bi may ko xam-xam may ko wér ba li ñu bëggoon ci moom nu ànd ak moom ba teer ñu di ko gërëm dafa ngeen ne borom xudratu boobu wa masiatu du jëre gërëm daf ngeen lu réyaar daf ngeen lu baax ñëpp ngeen defal maa ngi seedeel ñu fi toog ñëpp nag sama ngërëm ci sama mbokk yu baax yi lay ñuy wax sant yàlla ak sax dawaayir yi des yëpp yal na yàlla yokk seen sutura yokk ko jullit yëpp tey nag dama bëggoon ngeen xam ne bàyyi alaaji Malick du moroomu kenn ni ngeen xam ne si ama Tijaani du moroomi kenn ngeen xam ne Moustapha du moroomi kenn waxuma nag du nawle kenn nawle moom bari na lool morooma jafeñ ah tey nga xam ne leen ñi fi daje ñëpp ku ci ne antan ngaa waat ne nebi yàlla ko yónni am déet Mohammed yónnante yàlla la yéen ñëpp yematu leen ci sax xam nga fu ngeen jàll ne moo gën ñi mu yónni faf am àggu leen foofu waaw kay maa ngi laa laaj nag luy sa përëw ne nebi yàlla ko yónni baabu yànde yonteel doomi Abdoulaye Dia ak Amina borom ngor gu rëy googu boo ko noon jàkk gis ku rafet boo ko ñaanoon gis ku toge boo ko tooñoon gis ku laabiir boo ko songoon fekk fa jàmbaar waa jooja laa ne foo teg sa tànk ba ne yàlla ko yónni yamatoo ci nag nga nar a xuus ne moo gën ci ñi ñu yónni sur trois cent treize douze seen baay bu baax bi di sunu baay di sunu sëriñ di sunu wéeruwaay bokkul ak nit ñi ñi ñu taalife téere de aw góor benn jigéen bu baax moo ne moom mu jox ma kii moom dëgg-dëgg def lu baax addi rasul yàlla na ko yàlla jox ci tàppi àjjana ya jox ko jigéen ñëpp waaye daf ma cax de waaw lii am cax la de kii kii de sant ma ma nelaw guddi gi ba mu jeex kii de sant ma ma bàyyi tisbaar ak tàkkusaan kii yal na la yàlla fay say jullit yëpp dinaa di def Basiiru Jaañ grand sëriñ dinaa di def su ma nit saraxee mbubb ba ma fab ko ñaanal ko dama ko naan mbubb mii li muy rafet rafet chiffon la sunu yëre yi yëpp yi ñu sol yëpp chiffon la ñu ko sol yëpp ay niiw la ñu baal leen ko ku ko weddi nag ma laaj la bassin yi ñu fi doon jaay mille neuf cent neuf ana mu ana ñu ko soloon ba deux mille neuf cent quatre-vingt rek nga xam nga xam ne lii nga sol chiffon la de xam nga fu mu ba am fa ma du ràppe xam nga fu nit am fa dee xewul boobu ma àjjana bër bu set day gën a gis lekku àjjana tibb bu ñëw dàq ba ci topp sa premier goût ci sa premier tibb bokkul ak deuxième goût ci sa deuxième tibb troisième tibb am na trois goût bu deuxième bu premier ak bu bosam bi quatrième noonu doo dugga woon ak nag doo tuur ndox bën bëni kawar yi ci lay génn dàq abbaanitaa xet kër gaa ngoo ko gaa yi jànq ji fële kër ga ne du fii du nii du ñii fële la nele la ñële la allahu akbar waaw xaaji Malik taggul na bi dafa def téere xamle ni mu raame gàmmu sax ngi bëgg a xewi ndax li tax mu ngi bëgg a xewi woy woy ba mu teer nga firi ko araf ba mu araf mu teer su amee hadis nga ñambaas ko ci boo amee aaya nga ñambaas ko ci day bëgg a jeex li ñuy waxtaan di gërëmante rek ba bër set ñu dem Moustapha li ñu tudd yëf yi tudd ci am dara ndeysaan mais si daaj maa ni mu def téere bi boo ko dégloo nga xam ne pas par pas waxuma sax usnu nizam bi waxuma tasdiqul axbaar yi ci ne waxuma kiramaat yi mu ci def mais nga déglu rek seetal li ma leen laaj léegi li ëpp bi ma leen question bi ma leen posé luy sa preuve ci xam ne nabi yàllaa ko yónni góor gu baax gi nar laa tette ne la kay déglu ma ku la ko laajati nga am loo ko tontu ñu ne ko lu tax Maodo mu ne man xam naa ñeenti xam-xam ñu ne ko ban ak ban ak ban ak ban ñu daal di arrête dafa wax ne xam naa kañ la banqal sa baaraam xam naa nan la bankal xam naa fan la xam naa kan la xam naa kañ lañ leen dëkk xam naa kan lañ ca yónni xam naa fan lañ ko yónnee xam naa kañ lañ ko yónnee kañ la nit la fan la place la kañ la kañ la date la nan la aw defin la xam naa kan la xam naa kañ la xam naa fan la xam naa nan la jànq ji takk leen loolu téere dañu wax ne borom kër yi nañ jàngal seeni jabar ak seeni doom luy jur sopp na bi ak xam dara jàmm xale fiñ ci téere yu rëy rëy baabu yaa ndax xam-xam jeex na xam naa kañ la xam naa kan la xam naa fan la xam naa nan la ma ne kan la jëmm la fan la place la kañ la dat la nan la aw defin la déglu léegi si dañ Malick wax la kañ la ñu yónni nabi ak bañ ko yónnee kañ la kan lañ ca yónni pour mu xam ne yónent la ak bañ ko yónni fan lañ ko yónnee ak ba mu demee nan la ko ko waxe première classe première élève premier professeur première dars mu di leçon première classe mooy xarira première élève mooy Moustapha premier professeur mooy Jibril première leçon mooy Iqra kañ Maodo nag daf la ko nar a indil benn par benn benn par benn bu boo fi jógee te seen xel neex nga xaw see mën a tontu laaju ku la laaj ku mu doon te tontu gi si daal naa ni dinay def waaye ba mu yàgg léeg-léeg mu mel ni ku bàkku ndax bi la wër nii bari na ko wax naa wax li ma wax ci lu dul foog naa ne du foog naa ne lu wér la waaw kañ yonent yàlla Muhammad benn përëwa ngi nii boo xam ne sax Maodo bindu ko maa leen ko bëgg a wax ci nga dolli cee teg sa tànk ne mooy sayyidul anbiyaa wa asraful mursalina kulliha waxuma kullihum de waxuma kulluhu kulliha damuy rangoo ko ju mën a jaaxal elaw turam soo ko calculé da lay jox trois cent treize waaw loolu la yàlla yónni kat mooy lim bi xeex badru ñooy lim bi àndoon ak taaloote ba ñu rey jaaloote trois cent treize la fa ngi ci siru bu rëy ngi ci aram sàmb aram sàmb aram sàmb day ak ñun ak jullit yëpp yal na ko yàlla yombal junni yombaloon na ko yombal ko jullit yëpp kile basiru junne luy asakaam fukkeelam fukkeelu junne ñaata la téeméer la burham jox ko ñaari téeméer kale ko fi indi lépp càmmiñ ba jigéen ju nekk ci mat te mat wax xaw a jafeñ ba docteur yi di wax opéré moom boo ko Aminata Camara poste baaraamu sànqaley bu ndey joor ci luppi càmmuñu jigéen ju tollu diggante waaw est-ce que sama doom Malick Malick Fall sama doom waaw kañ jigéen ñi tàcc dañ ko bees ci muhammadu muhammadu ñaata araf la miim xërëm dellu miim deel ci zayir ci nëbbu ci naxaate allahu ñaata araf la lii laam laam alsaxeer ci nëbbu ci naxaate waaye ci piir nag du noonu de si si si bële nga yëngal bopp bi xam na ci dara waaw ah ah baati Mouhamed ci arab ak baati laawu ñoo yem waaw boo indee arfu naf yi indi bu isbaat indi ismu soo ko boolee calcul ko basiru daf lay jox fukk ak ñaar nu ngeen tudde fukk ak ñaar ci limi tubaab kay yëg nga ne nag maa ngi la wax lu sew lu jaaxle